asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne teew ngeen fi yëpp yéen bokki taalibi yëpp yéen bokki taalibi yi murit yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant kilifa yi yëpp yëpp yëpp amul ràññeele amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di sant ndax. yal na nanu ko yàlla fayal ndax kat sagal na der bu ñuul. danaa di wax ni ku mel na moom waajuram di ku ñuul ñaari waajuram yépp ñu ganee àdduna fii génnuñu dëkk bii te raw arab yi daq leen jàng fu mu jóge fattaqullah yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla jàngal leen ñoom yàlla leen jàngaloon sëñ Bamba bokk na ci ñi yàlla jàngal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 yéen da ngeen di wutal président Senghor noonu ah. kii li mu wax sëriñ la waxu sëriñ la wax lan moo ci nekk lu ngeen di censurer man dama koy passé ba ko sëñ Abdou Lahad déggee mu yebal Modou Mamoun Niang mu ñëw fekk si ma mu jox ko ñeenti téeméer ni waxal Bachir ni ko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 ba mu fi jógee fa tabaarakallaa ñépp wekk këri diine yi wekk lislaam bi dafa am xam-xam am xel fa tabaarakallaa am njàmbaar fa tabaarakallaa nekkam fii di xalifa sëñ Touba tax na gouvernement bi gën a gën a wekk kilifa diine yi waaw ndax meloo ko yàlla joxoon mbir mu teew ci kanam walla mbir mu xew ci àdduna dana ca wax mbaa mu def ca loo xam ni ñëpp dañ naan fa tabaarakallaa sunu xaalixin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 yéen ñëpp sàmm ngeen te kuy sàmm nag dinañu laaj ëllëg li nga doon sàmm lu mu doon sëñ Abdou Lahad yet waa dëgëroon waaye du soxor mukk sàmm nag bu yet wa dëgëree nag wi daanu bare jamar waaye daanu jofi moo am solo kon yan nañu ko yàlla fayal yàlla boole ko nag ak Serif Serif Abdoulaye Thiaw Laye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 sëñ Abdou jër na doomam ñu di wax soxna Kiné ñoo ñaa ñooy suñuy bokk kon sëñ Abdou daa ñëw dugg suñu biir kër ba noppi nag fekk sino ngaa xam kër Saliou Ndiaye bi mu ñëwee ñu ni sëñ Ablaye doomi sëñ doomi sëñ Tuubaa day mi ngi ci dëkk bi mu ne ah ñu ne mu ne waaw waaw mu ne ah kooku de kon dinaa ko siyaare nga ak mbaax ga ak yaatu ga daa di jóg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 na sant ma ne ko jaañ laa sant na nga sant yow mu ne ma mbàkke ma ndax sëriñ baa ngi fi ma ne ko waaw mi ngi fi mu ne ma nuyul ma ko fekk ma suma koo gis ma ne ko na nga tudd mu ne ma sëñ Abdoulaat Mbàkke ma daal di dellu ci biir ne ko ah, am nga gànde mu ne ma gan ma ne ko mu ne ma ku mu doon ma ne ko sëñ Abdoulaat Mbàkke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 mu ne ko sëñ bi dal baa ngi ne mu ne ko ah eh, sëñ bi dal mu ne ko waaw ah, sëñ bi dama fay jaaroon doon la jaal sëñ ji bi rek te bëgg a dem jàll dakaar mu ne ko ah, loolu rek di mënu la fee jële mu ko ah mu ne ko déedéet waaye mën naa laa dimbali nag wax la loo xam ne soo ko waxee dinaa la bàyyi nga dem ma jàpp ca loola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 ñu ni ko am na ku lay nuyu ñu ne kan la mu di sëñ Ibrahima sekk comme ni Maguette Diagne waxoon exact mu ne kooku damaa yaakaar ne danga may nax daal dalal sëñ Ibrahima waxtaan na moom ni ko moo sëñ bi loolu andi mu ne ko sopp la rek nga ne sama xel lool ma ne du ma fekk Touba damay bàyyi ba yëg ngi Touba belal ma fekk leen siyaar la mu ne ko fii de ku ma fekk man Abdoulaye mi dinaa gëm ni man dong nga tax a jóg boo ma fekkee Touba nag maa ngi ñëpp ko bokk daal dalal sëñ Ibrahima.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 ne ma maa la ko jox gura ba mu génnee cent mille francs yi ne ma maa la ko jox gura ma daa di jóg daane ko nekk ma ma ñëw dem ci sëriñ bi ne ko ah man kat kii du ñaari saretu këriñ ñaari camion këriñ la léegi nag jox na ma cent mille pour ma bindal ko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 ñu doon jël participation waa présidence ci projet bu ma amoon projet un milliard et quelque bu ma amoon maag Bamba Crespin nag ñëpp présidence ñëpp jox nu seen participation bi ñu joxee ñoom ñëpp seen participation mu nekk addiya ju takku ma ni Bamba kan dem yóbbul ko sëriñ bi ñu ànd ñëw ñu yegg si Touba.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 joxe naa sa dërëm a ngi fii ci xaalis bi ñu ne seen participation la ci projet bi nga am mu ne ma projet bi un milliard et demi la woon mat na un milliard et mat na arrêté naa jeex na tàkk beneen yoon <laughs> ma ne puisque nag moom moo ne ni woon nit dafay am fulla ak fayda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 ñuy ñibbi dugg ci bi Bamba ne ma yow da ngaa ñeme Serigne Abdou Lahad ma ni déedéet ñeme ko mukk de lim ma jàngal laa appliqué ci moom. ma gis ci moom laa biir ak ragal ragal lan ragal tooñ Serigne Abdou Lahad ragal lan yépp ragal tooñ nit la.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 di def ñaari kuy ni sëñ Ablaay jëlal mu la ci gënal mu ci jox ko sa mag bi la bu war a dox suñu diggante yëmul ci loolu bi nga xamante ne dem na bay bëgg a génn àdduna yéen ya mu yónnee sëñ Ablaay yow defe naa xam nga ci dara mm-hmm. yow sëñ naa sàll ay mbàjja nga ca mm-hmm. ab dara nga ca mm-hmm. kurusaa nga ca ak satalaa ca kaalaa nga ca mu ne nee leen sëñ Ablaye daal ak kaamilu alxuraan sëñ nee leen sëñ Ablaye daal lii daal mooy mooy wàllam ci ci ci man kere ba mu ñëwee sëñ Ablaye woo ma won ma ko man ko ah yow de sa xilaafa sëñ Ablaye taxawal na ko mun ko lii ngay gis mun ko di toog jamono ñu ne laay ni yaay yilif ñëpp loolu amul sëñ Abdoulaye du ko defal mo ko moo ko jëkk a taxawal wala de woon na doon dox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 xëy na xanaa yàpp ngeen dul am waaye sax yàpp ngeen ko am ndax ñi ngeen dëkkaaleel ak seeni mbokk waaye na leen wóor ni am ngeen tabaski ndax yent yàlla muhammad de ca yërmande ga rendi woon na ñaari xaaf ni bii pour man la bi si des ci pour ku nekk ci sama xeet wi te amuloo tabaski bi wa yowmal am kon yow mi amul tabaski sax yaa ma yaa ma war a gën a dal xel gën a dal xel ñi nga xam ni am nañu tabaski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 mu ni ko balaa walakin ay naqal bi gëm naa waaye dama bëgg lu dëgëral sama xol moom mooy mooy saayur aaya bi sëñ Abbas ni ma foofu dañ nit ñaa ngi koy firi firi bu bon waaw mu ni ma yent yàlla Ibrahima xolam du rëgg-rëgg mukk li yatmaina qalbi mooy lu dëgëral sama lay ma ni ka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 wax dan alihi xaqan fi tawréeti wal injiili wal quraan yi daal cay teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi loolu kon dugal nañu ci biir daal di daal di door a wax nag ne fastabsiroo bi bañitumu li si bàyyati bihi bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaali ko wal fawsan asim door a wax ne la xadara li allahu anil muminina isi bàyyi na ko taxta sa jërëti kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la lu la am maanaa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 te liggéey na ko liggéey yoo xam ni tam wax dëgg yàlla eh, ku nekk Touba Mbacké di nga xam ni sëñ Abdou Lahad bi ñu ginnaaw na fondation tegaat na teg yoo xam ni da ngay teg rek muy dem waaye wax dëgg yàlla eh, liggéey na fa loo xam ne woon homme d'action bu rëy rëy amu fit am décision am na yoo xam ne du ko woon def mais nit la woon nag koo xam ne ni wax dëgg yàlla eh, qualité yi ñu soxla woon ci kilifa daal nga xëy nekk ku dëggu Euh, la yàlla doon wax euh, yonent yàlla Idrissa na waskur fil kitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiyyan wa rafahnaahu makaanan aliyyan euh, sëñ Abdoulaye nekkoon na nit ku sincère ku dëgg koo xam ne nii moo taxoon yàlla doon ko yëkkati di yëkkati turam di yëkkati ay jëfam di yëkkati ay mbaaxam mën a gën tam tubaarkaala gis nga ko loola loola mooy yooyu te siddiq nag moom moo nekk moo sës ci yonent yi ulaayika llaziina an'ama llaahu alayhim min nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina wa hasuna ulaayika rafiiqan zaalika al fadlu minallaahi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 lu ñuy ñu jiite ci senegal rek mën nañ koo jiite dara du yëngu kon nit bala nga buñ nee nit ku baax bu sa xel rafetee dangay ngay bari ay àndandoo ay xarit boo baree alal da ngay bari àndandoo waaye bu sa jikko rafetee nga bari turandoo. exemple bi bi muy jàppale woon Abdou Diouf te nit ñi di wax lu tax sëriñ bi di wax loolu ci rajo bi di jàppale Abdou Diouf sëñ Ablaat ca ngoon ga mu ne man duma wax dara di ko teg ci bakkan.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 man duma wax dara di ko teg sama bakkan lu conseil bi gën a dur mu gën a kontaan ndax man buy dem man maay toog ci wetam nii ñu tëj ver ver yi tàngoor bi duñ bëgg a rey ndax moom bu climatisé day feebar oto bi Touba aller retour def nañ ko pendant dix-sept ans maa moom chaque trois mois ñu ànd. Abdou Diouf dafa muusoon ndax itam. Euh,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 xamul le passé xamul le futur mu ne li mu xam mooy ci saa si le présent nee na boo fekkee weer wu jot nga jox ko benn libidoor boo ko joxee libidoor bi weer wu jot nga jox ko benn libidoor nee na benn weer nga tëb ko nee na bu ko neexee mu ne la ah man de musuloo ma defal dara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 lan la yàlla di seeti lan yàlla di seeti maa la rek président Senghor moo wax ni moom bëgg na sëñ Abdou Lahad ñu ni ko tax mu ni pa ngir lu nekk ci moom dana ko wone moo nu ko wax président Ousmane Camara ngi toog Maguette Lo mu ni moom bëgg na sëñ Abdou Lahad ndax daal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 mu xëy ci ama wërta si wax ne mayetuma kenn ku ma wax ci Mamadou Bamba gis naka tey sama digganteeg yàlla wasat bi añ bi ko ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo naa ne la bisum tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamu yàlla donc boo xam ne bii rek day liggéeyal jaamu yàlla bu mag bi jaamu yàlla bu mag bi tax nga wax fa awha ilaha bi ma awha